asalaamaaleykum mbokk yi teel a ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci muy weeru gàmmu di ñetteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñett ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukki fan ak bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la konte ci ajjuma ja rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma mucc ci bépp bàkkaar ak màng mboolem jëf yu baax yi allahuma inni asaluka alsalaamata min kulli ism walganimata min min kulli ism xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bi ñu ma ràññaanalee romb naa aw nit ñoo xam ne ay we yu bàyyikoo ci përëm lañu yor di ca gàjji seen xar kanam yi ak seen dënn yi ma laaj Jibril ne ko ñii ñoo ñan mu ne ñii ñoo ñi daan lekk yàppu nit ñi ci di leen jëw ak di yàq seeni der xadis bi abu daawud nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lamma urija marartu bi qawmin lahum asfaarun min nuxaasin yaxmasuuna wujuuhahum wa suduurahum fa qultu man haa'ulaa'i yaa jibriil qaal haa'ulaa'i alladiina ya'kuluuna luxuuma annaasi wa yaqa'uuna fi a'raadihim rawaahu abu daawud waxtu julli suba waxtaan dana tàbbi cinq heures quarante-trois juróomi waxtu yi tegal ñett fukki simili ak ñett tisbaar treize heures vingt benn waxtu tegal ñaar fukki simili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 six heures cinquante huit juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom ñett diso dix huit heures quarante six juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom benn yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin